<laughs> ma laal ko samay peeru ma laal ko samay peeru kopi. laal ko laal ko peeru kopi bi ne ko peeree xal. mais loo ci bël loo ci bël bi loo ci bël bi. ma si ma ñu saa nii de mais ah neex na de. am fu mu bi fu mu bi mi ngi yéegaa ah, chaque année mi ngi gën a yéeg nag. Ah. man loolu laa sant depuis premier bool yi ba deuxième bool yi les gars yi seen basket mi ngi gën a set. ah gars yi dañoo xaalis gars yi def xaalis léegi bon gars yi def am nañu xaalis kay léegi dañoo am xaalis carrément. mais mais mais li Gallo wax démb lu ma liir mu ni euh, équipe bi gañee dina ñam opportunité wu. Amin meilleur MVP bi dina jouer Summer League mais boo nee Summer ci man ci sama gis-gis quoi boo nee Summer League joueur boo nee Summer League da ngay dafa mel ni da ngay tuutaal. niveau wu d' accord niveau yi du ñu benn. merci merci mais da ngay tuutaal niveau wu basket basket doo ñëw rek directement di ko yóbbu Samba League at least jox ko benn chance boo xam ne peut être mën na def try out boo xamante ni peut être pour NBA la ci sama gis-gis quoi pour NBA la quoi. léegi su ko defee eh, kii Thomas eh, kii Thomas. Thomas la loolu doxul nga yóbbu ko Samba League. waaw a ci site bi website bi seen website bi. mais. Euh, mais mais mais loolu loolu noonu bi tournant bi yëpp lool benn jour rek moo ko si am. grand cher. grand cher maa lay bëggee. yes su ma juumul su ma juumul ci li ma liir. MVP bi quoi mais li ma li ma doon suggéré ki gagné bool bi gars yi jël ko def benn jumelage comme NBA pré-saison yi muy demee ay London ay Chine. benn équipe NBA soit déplacé wu ñëw Afrique ñëw joué. ñu joué ak ñoom au moins. mais pas mu jël. gaa yi kii gagné di ko yóbbu Sambalik Sambalik mooy équivalent booy high school wala booy collège yi soo ko paree bëgg dem NBA. mais seen bël bi gars yi gars yi ren seen bël bi kii la de seen bël bi ren am na xaalis. non bool am na xaalis kay bool maa ni bro. man de néew bu ma mujj bi sax. kat noonu. yow nga am kat. am na ñu ma gënoon am na ñu ma gën a jekk jekk fukki yoonu juróom demuñu si bool bi. ndimba yi daw naan ma ndimba yi nii di daw naan man am na bëri bëri bëri gis nga waa ji nii am na ñu gën a jekk si bool bi waa ji moo tax ma moom mi ngi yóbbu buur. ah Ba ya. non man nëw nëwul laa topp lu mu def rek. ne woon de ne woon de xam nga lu ko tax a bàyyi noonu moom ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ lu ko tax a bëgg a bàyyi. léegi day newul newul newul actionnaire kii la bokk. actionnaire nuuru laay la bokk. nuuru laay la ma nuuru laa la ma nuuru laa man xaw ma la ma nuuru laa. man nuuru laa. actionnaire la fa de. man nuuru laa si laa si xam de. bilaahi mais néew dara da ko ciy boole wala boole wu ah? eh, eh, laa jus laa si benn copain bu muy jógee Sénégal indiloon na ma si benn bitéel mais bu weesoo nuuru laay wax nii xaw moo ko de bak ci yeneen TV. lan mooy naam loolu xam mooy lan nampi nampi mooy nan man. Namp Namp. Eh, Sénégal is going to win. Namp ma yaay wér. man xaw ma lool de ay ay ay Namp xaw ma lool noonu dama leen wax rek baa li nga sa ji bi. baa ci démb démb moo dugg ci laaj. man loolu tuddee man tudduma la de. mais gars Majaw terrain terrain bi gars yi ko Sénégal moomuñu ko booy bi nga ci laaj bi booy. <clears throat> ah terrain bi nañu wax dëgg terrain ah dafa ñaaw wàcc kii Serigne Touba dafa ñaaw. mais tey parce que Sénégal moom ah parce que bu ñu bëgg a entraîné du ñu entraîné ah. pour ñu entraîné la ñuy fay. ay fay. Eh, eh, ay eh, ay fay yow ñu pour ñu daal. yow ñun amuñu stade bu baax ñun amuñu stade bu baax ba pare bëgg a jël d'Afrique loolu day xam xam nga xel xel nangu ko bilaay xel musu ko. nangu lool mooy ki ñaanal football nañ ñaanal ki ñaanal football nañ ñaanal man loolu kaw laa wax ki ñaanal football nañ ñaanal. ñaanal football du ñu ñaanal de ndax balaa mu lay ñaanal da ngay am place bu ñu la ñaanalee. eh ki ñaanal football eh ki ñaanal football bi laa ki ñaanal football bi laa même bu ñu ñaanaloon. bëri bu ñu ñaanal balaa mu lay ñaanal da ngay am benn place bu ñu la ñaanal. loolay loolay lay ñaanal da ngay am place bu ñu ñaanal. ne ko loolay ndimbal la ñuy fekk lool borom. Marius Ndiaye gam te Marius Ndiaye bu nawet jotee. ñun mënuñu ko ba mu senn mu senn man xaw am na benn côté bi côté gauche bi xaw ma ay day picc fa nekk xaw ma fa nekk nan affaire yu garaaw yu fa nekk benn côté gauche bi gars yi da nga ay saa ay saafara gars yi dañuy bien ba bien ba bien ba bien suñu bien ba pare boo xool tay la lépp teg ko dam koode bon Marius Ndiaye Marius Ndiaye moo gën a torox ci ban stade yi moom sa avance basket ci àdduna Marius léegi nag léegi ancien bi la ñuy indi quoi da ngay gis benn équipe bu Sénégal bu war a day benn équipe bu Sénégal dinañu jël cinquante mille fay ko préparation physique bu yi cinquante mille yi pas maara bi lañ koy jox mu leen ña xool wala ñeenti njaq gars yi sottee googu taxawee na li yow yow li gën a garaaw mooy man kat laa xam ndekete gars yi seen teere ñu entraîné rek xam nga championnat Sénégal mii duma ko xaw ma ndekete gars seen teere ñu entraîné yëpp ay dër la saa yi non ah ay Zia fan la ñu entraîné. Zia. waaw ay ville de Dakar fan la ñu entraîné seen terrain ay parking parking quand non seen. parking quoi. mais sa ay dër lan di ci entraîné dër. yow mu ne la instant yow nga ñëw instant ñun la ñu entraîné loo ci dër. aywan aywan maa lay bëgg le siyaar. yee bro. li nga xam ni sa comment. Sénégal ñun dañoo torox. neexul dégg de mais bu fekkente ni terrain terrain yi baskette i yi baskette yëpp ay dër la yooyu imagine nga bëgg a bàyyi basket par exemple tey par exemple man dem basket Sénégal bëgg nekk basket nga bëgg basket sa dëkk affaire yooyu noonu imagine saa nga basket fii ba sa yi yaa ngi pare nga dem naa yaa basket ci dër bi dafa mën nekk. mënul mais gars yi bu génnee au ñuy wax ci affaire boobu yéen affaire la ñuy wax. Khalifa bro démb la ñëw fii boy di ñu jaay di ñu jaay xale waaw di ñu jaay doole. la wax ni. mooy jàpp ñu duñu mbëkk mbëkk yoo xam ne ñooy bu jàpp ñu duñu mbëkk saay. non. booy jàpp seen giraam yi mbëkk. maa maa yu. dafa xaw grand gal di ji di ju. ji di ju non que bandi la parce que moom koy maa sax dugal na photo moo yu seen kanam yi. moo kan. moo gi yu ñu xëccoo benn rebond yi nga gis def effet kanam seen kanam yi. seen kanam yi tey. ñoom ñaar suñ ko bàyyante. day kanam yu garaaw. duñ ko duñ ko bàyyi kenn. mais football football bi yow nga ne kii mu ngi def match daal ah, Thomas. non Thomas mi ngi joué. Thomas dara na nag. trois points mooy lay tëmbal joué ci biir joué loolu daal nekk. it's playing good though. équipe nationale bi passé moom la ñu war a njëkk a woo parce que amuñu quatre buy njool Thomas day day sànni day day pénétrer day dem dugal man loolu njool bu wax affaire yi neexul wax dañoo amul koo dàq sànni sax Thomas. mooy pivot deux point zéro moom conscience buy sànni du hésité. moom day jaab gañ sànni. sànnikat la saa wax ñu koy dégg. maa maa setu kan la. loolu démb gis naa ko ci par exemple interview yu waa yu waa douane douane def. par rapport ak booy. sénégalais yi xam na Tambay Tambay mu ngi wax ne dëgg xam na Tabax. Tabax Tabax Sénégal mu ngi ko génnee. problème bi kay mooy mu ñëw nga mettre ko à l'aise wala nga ñàkk ko mettre à l'aise xëy na affaire yooyu noonu mais boo ko mettre à l'aise rek nga sànni kat nga sànni bari. amuñu kat nga daal sànni Thomas Thomas day xalaat. non conscience lay tudd.

espagne laa dugal tey dugg team espagne kese. ak biram ak biram mën ngaa dugal biram de. dugg na non. inter. moom may fitu dugg parce que moom petit moom yaa waaw ah, mais. nit mais Modou Modou da ngaa daw Modou daa da daa moo ñu gunge ba mu daw bañu fi ñu dañoo daw. waaw ah, mais sama gars yaa ah ngi ziar. lépp jàmm. waaye kul nii rek. alhamdulilah naka yéey daal bi nekk ah jéem. daa maa ngi soog ak si de waa ñoo ngi deex de. <laughs> laajal sa gars yi am na ñu ko fa miin de am na ñu ko miin de. <laughs> non jéem non jéem moom soo defee sax deux jours ñu miin fi miin fi de. <laughs> dafa bari dafa bari ay Sénégalais quoi. waaw waaw ci lay daal. jéem. waaw ah, Petit Bakkan naka am Petit Bakkan. Petit Bakkan France. waaye dama bàyyi waa Ndim. waaw we. lii de. yow a ñoo faat après naa jël suuf. waaw amul benn problème Modou Mbaye Modou Mbaye naka métti. waaye métti ngi rek di sedd jëwriñ la mën a Espagne de. booy saa Espagne saa ñu ngi ci tey ñu ngi ci ay vingt trois degré Grenade. waaw bilaay booy fii da ngay sangoo sangu bay bëgg a dee. waaw ñu kay yéen ngi baax maa ngi gis dem benn kii walaay. mais par rapport ak bool bi nañ nañ ñeme wax ba petit ah. bu ah. muy demee noonu bool de. waaw ah, bool bi de il faut oser le dire en Sénégal li ngeen wax noonu sànq c'est en ñun ñëpp fa lañ juge mooy suñ fierté mais ñi entraîné ci dër ak ñu dul entraîné ci dër man Tunisie dem na fa deux fois niveau yi bokkul la. bu yàlla buñ tegee mystique teg lépp teg lépp wallaahi. man dafa am yo yoo xamante ne man mënuma ko kii quoi fii ñun ñëpp étranger la ñuy la ñuy joué. soo fi ñëwee doomu dëkk bi la ñuy prôné douane warul mën a bàyyi Ibrahima Thomas ay monastère di ko jël li ñuy jox américain yi moo leen ci gën a yell ndax lii ndax lii ñun ñëpp def ñuy motiver pour ëllëg ku ci bëgg a bàyyi wala dara nga ne dinaa dem sax Sénégal jouer ko benn un an wala deux ans gratuit mais suñuy prôné ay doom yi tu vois en plus mm-hmm. tamit discours tamit coach duwaan bi paa bi man xam naa quoi man dem naak douane mais mënoo saa yoo perte match officiel wala dara indexé ni nga xoolaat moom it niveau tu vois parce que fii am na ñeen ñoo xam ñu ngi basket ba léegi mais ils sont diplômés en coaching am ñeen ñoo xam ay préparateur physique la et tout ñun ñëpp dañu war a kii nga xam ne ñun la quoi ñoo far li war na mën a tax benn biram su demee bay bàyyi ne pourquoi pas ma may Sénégal benn deux ans trois ans sama carrière keneen ak keneen mais lii day tax gars yi di daw yow munoo booy la gagnal sa championnat nga leen di wàññi di jëlee américain yoo xamante ne billahi boo patient wee say mën nañ la jox lu ëpp loolu tu vois américain ay couleur lañ mais amul kenn ku ciy ma leen wax ni man boog sama sama sama mindset la nag quoi man du ma dugg sax ci non mais mais non li nga wax moom dëgg la quoi waaw li nga li li nga wax moom dëgg la quoi gars yi xam nga Sénégal américain yi ñëw foofu ñëpp ay mercenaires la gars yi fee ay points la ñu di jënd si gars yooyu ñëpp xam nañ ko de non te te xam nga problème Sénégal boo jour boo ñëw xaar ba deux semaines des nga jënd ko bu gaaw jour bu fay def day ñëw pour dugal ay point dem fu mu amee benn mentalité la ñu yor nga ñëw benn groupe bëgg ko joué dem yoonam fekk xaalisam kooku ñëw lu def dugal dem wuti ah, bi yéen a ngi wax sànq ne mu ngi mu ngi mu ngi up loolu dëgg la mu ngi avancé mais ñun. mu ngi ground up ci côté bool bi quoi mais pas waxuñu ci côté kii bi organisation bi affaire yooyu noonu mu ngi mu ngi grow up Sénégal. waaw c' est ça. Sénégal moom fii foo visé ñu ne mais Sénégal seen basket seen basket mais. seen seen recruting moo des ni ñuy recruter xamuñu ko. parce que joueur sénégalais bu ñëwee ne la ok moom bëgg na jouer Sénégal xam nga yow nga ba mu ñëw ba Sénégal mu ñëw ba Sénégal parce que xam naa ci dara waaye ñëw ba Sénégal gars yi naa noo wàññil lii xam nga jàpp ci affaire yooyu noonu te tegaloo ko contrat nan la ciy jàppee te tegaloo ko contrat. da nga koy tegal contrat ni proposé ba pare nangoo ko fay. kaay ma jox la benn anecdote bu ndaw boo xam man dama ko dund ak ñoom man dem naa fi bool bi passé wallahi alazim yàlla rek lay jëlub seede coach bi benn match entraînement lañ doon def nii mu jox ma loxo gisuma ko mu ne ma disciplinaire damaa toog rek sama papa woo ma téléphone ne ma mais 2STV lañ nekk di wax nee nañ comme dafa am jour boo xam dañ ko écarté pour acte disciplinaire ci ñàkk jox loxo. non man dal na ma dal na ma gi mas naam ñu jugee foofu ñu jóge foofu est-ce que yaa ngi comprendre ñu jóge foofu ci compétition foofu di gagné nañ xawma lan ñu war a jox prime ñu jox ñëpp prime ba mu des ñun étranger man j'étais partie des étrangers affaire du neex a wax mais ñun il faut ñu jàpp ci quoi parce que wax bi nekkatul pour ñun de nekkatul pour petit ñun ñëpp ni ngi sant eh yàlla mm-hmm. duñ fi amuloon mais next generation te loolu ñun la les les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. merci gars yi foofu la ñu war a ne. tu mais warul mën a benn ndim boo xam te ne peut-être extérieur benn biram ngi jouer au niveau petit ñaa ñun ñëpp dañoo war a am suñu implication ëllëg ci équipe nationale tax man dama bëgg Khoureychi Thiam. parce que ñoo demandoon équipe nationale Mali et tout mais ragalul li muy wax. tu vois c'est pas un gars aimé et tout mais nitu dëgg la te fi yàlla rek fi ne. il faut ñun ñu mm. kii mais niveau bi mooy loolu tu vois suñu niveau cotin faaw ñu xoolaat ko am nga xam nga ay collaboration xam nga boo boo boo seetloo Boniface ñëwoon na wax ci affaire coaching beeg deuxième entième euh, yeeg yooyu wax na ko fi wax na ko fi mais gars yi. gars yi bu fekkee Sénégal nga nekk doo comprendre niveau bu muy waxee. li wax yëpp dëgg la bàyyi ma joxaat la beneen anecdote mm, Boniface euh, avant dernière campagne am man woona ma ma nekk Belgique Covid am mm. ma ñibbi. dem ci copain Biram Mamadou di entraîner Thiès man damaa jékki-jékki euh, kii wooma comment dirais boni wooma ne ma pap foo nekk ne ma ne ko man ñëw na bërki démb Dakar mu ne ma ah parce que dañ ma woo ne ma nan ngay wooyee nit ku nekkul en compétition te maa ngi woon en compétition nekk Belgique Covid bi su yàqu man balaa pour ma jàpp loxo tuur du ma ñëw ci benn Matar Matar li may liggéey loolu moom la ma n'importe quel mënoon naa nekk fii di taxawaalu Paris wala dara te pourtant bés boobu noonu après ñu ngi jël équipe nationale ko de yoo xam te ne compétir wala kenn xamul seen compétition tu vois affaire bi du du man waxeewu ma comme concurrence ou quoi que ce soit wallahi mm. lancim yàlla yàlla yàlla rek a tax may wax équipe nationale intéressé tu ma te mën naa am ñii fi wax nii yëpp du seen du seen objectif de vie mm. mais dañoo war a liggéey pour mu jëm ci kanam parce que basketteurs yi sénégalais ñoo ëpp ci addina bi ñoo ëpp ci àddina bi ay Abidjan yii nii ñaata joueur lañ am te ñun ñu ñooy am position bu gën doigt ñoo ñëw gagné doon match d'ouverture il faut hmm. gars yi kii quoi il faut gars yi xam nga gars yi ñemeloo gars yi. équipe oh, ay boy par exemple ay ñoom John. ay ñoom foofu laa doon ñëw wax léegi. foofu laa doon ay boy yi yëpp mais c'est que boy en li ñuy gën di màgg dañuy gën a ragal équipe nationale ndax ni mbir mi di demee la. non booy bi xam nga dañuy dañuy bàyyi ba booy nekk dañuy bàyyi booy toj li ñuy toj ba yeneen dëkk yi jël leen wala yeneen dëkk yi leen ba booy dem ba nekk leen am ay vingt huit ans vingt sept ans ñu àndoo booy woon ne nii xamuñu woon ne nangam yow yow Sénégal boo éligion bi sax boo doon bi muy développé mooy âge bu ndaw bi Youssou maa ngi lay bëggee ndaw bi bi muy développé foofu ngay récupérer joueur bi développé moom jugóog moom mais doo bàyyi ba muy am ay vingt huit ans trente ans laa nga bëgg koo jël boobu dafa defati dara prime time bu nekkee xale muy muy muy gëstu équipe bi ba waa Espagne la Espagne ñama Espagne U14 lañuy commencé ak yow ah ay ay fàttali nga biram bi ñuy daje Saragossa ñuy joué sélection Espagne bi that's crazy moo tax laaj booy noonu yéen bi sax sax. booy Birame di leen bloqué booy Birame temps yii dañ doon bloqué di sànni bal yi ginnaaw stade yi xam nga li ma koy wax. non mais loolu loolu pour te dire Pape xam na système espagnol gars yi muy defee xoolal seen sélection bii di paase na benn booy bu nekk suñu équipe bi booy bi ay ñaata la am dix-neuf ans vingt ans booy Caicedo amul benn match bu ñu joué mais dañu ko yóbbu ak ñaari moromam yoo xam ne ay jeunes lañ. kii lañ mais juste dañ ko yóbbu rek pour mu ànd ak gars yi nekk ci baa bi joué benn match mais ñoom la àndal ba affaire yi jeex dañ ko woo sélection ñoom la àndal ba affaire yi jeex tàkk. ay booy ñu xam ne tamit ay projet sportif kenn du ko defar ci benn saison deux saisons. Mm-hmm. da ngay construire. tu vois fi mu toll nii Espagne seen génération 94 yu petit xam nga li ma lay wax mais ñooy seen capitaine équipe nationale. 29 mm-hmm. ans 28 ah. ans 30 ans ñooy seen capitaine équipe ah, nationale. benn ñoom ñoom non noonu la dem ñëpp ñoo yàgg a joué ah, te ñoom ñëpp ñoo yàgg a joué depuis petite booy dem di kii man man pour man man pour man bool bi nii ñun suñu yëfu bopp la quoi ñun ñëpp dañ ci war a mën a xam nga jënd suñuy billet sax dem di seetaan mais daf ñu war a identifier même ba ci championnat local Sénégal yi ñun amuñu doole Monastir bi moo ñu ëpp doole mais Monastir fexe na ba dajale joueur équipe nationale am yëpp Monastir parfois duñ bokk club de à un hmm. mois de la compétition la ñuy changer club parfois duñ bokk club mais à un mois de la compétition la ñuy ut licence su club bi pour suñu seen équipe mën a am doole mais ñun da ngay gis kuy basket bopp wala kuy basket ya non c'est comme si il peut pas voir et tout te boo yi lay gagner championnat bi tamit après boo leen benché di dem jëli ay américain yu ko jarul saa waaye du neex si ñoom ah. Mm. neex si ñoom. mais Birame Birame Birame ci biir tudd mbal yëral la ko tàpp yi benn boobu ki ñaaw ak parce que loolu noonu moo manqué ñëpp ah. parce que booy xool lii next parce que ñii bëriwu ñaay américain malien seen équipe ni ñu gisee ni ñuy basketee ak bu ñu ciy def non is next level dañoo déggoo sax waaye tamit waaye tamit ko présenté ñoom waaye tamit ñu ngi def waa ticket indi ay. par exemple <laughs> duñu gañe dara. waaw par exemple tamit ñoom xam nga Sénégal tamit dañuy soxla dañuy man nangu naa benn côté quoi dañuy dañuy soxla sànnikat quoi affaire yooyu noonu xam nga. waaw. dañuy soxla sànnikat tamit xam nga dañuy soxla. mën a tamit xam nga mais lan mooy indi lan mooy indi sànnikat boo amul terrain baax nooy amee nooy formé sànnikat. boo amul cercle yu baax amul terrain baax la booy nekkee sànnikat. Sénégal booy formé problème la dëgg dëgg dëgg parce que dañ ko formé booy booy booy boobu noonu nga ne kii sax mën nga ne xalaat ne sànnikat la booy géer commencé sànni Sénégal yëpp presque dañoo dem États-Unis formé wala ñu dem France wala feneen formé mais Sénégal ah, boo sànnee dafay sànne terrain dëri boo sànnee boo ñëwee ci terrain da ngay jom da ne ku ñu jëlee gosaas rek nga yóbbu New York booy démb démb match bi seet nañ ko de mais Boy Kaane to be honest ñoo yàq mais mais mais Ndib Boy Kaane yooyu noonu si ñaar ñooñu par exemple compétir ñu fenn seen kër la ñuy toog di play ground bool bi ñëw ñu laaj ci xaalis bu ñuy laaj ci saison entier ñëw joué la ñun xam nañ ñi mbir yi demee. tu vois c'est c'est plus des gens yoo xam te ne dañ nekk di compétir rek dañuy ñëw def seen stade déwét ñu amaan équipe bool man loolu tax ça me fait mal que ay Ibrahima Thomas wara mën a am seen place équipe ngay jël xaalis di ko jox ñoo xam te nekkuñu sa dëkk. Thomas su amee niveau pour jouer Monastir ak ko xam Monastir am na niveau pour jouer Douane. amuñu ñu ko gën. man néew ma fi nag di défendre kenn bu doon yeewit nii laa koy waxee bu doon biram nii laa koy waxee. mais ñun fii dañuy dem ci yenn club ñu ñuy atte ñàkkal ndax duñu ay doomu réew mi kon sa doomu réew ji yéene ko dix mille fois avant keneen. Mhm. mbir mi foofu ba pare amoo lu ko tane yéen yow petit da ngay entraîné ak moom vacances yi wax nga dëgg il est man gisuma kat bu ko fa dàq saani les choses sont telles non amul non amul amul amul de amul Sénégal ku fa dàq sànni Ibrahima Thomas piwo yi amul ma ne la bu ma la koy def. a sànni de daa mën a sànni trop. koro rek maa bëgg nañ ci wax dafa dafa mën a sànni. tamit nit tam nga ne non ki boo ko ñëwee indi ko. tamit dafa am leen lu nekk itam ci dafa bëgg quoi xam nga nit ñi sax bari na ay joueurs yoo xam nga mm. ma mais ko Thomas ça se voit dafa bëgg basketu Sénégal. tu vois donc dafay demee kii woom quoi. dafa bëgg quoi. donc loolu ñun ñëpp dañ ci war a mën a jàpp beneen sax oh, man je ah. suis pas contre de ndax fii équipe yëpp dañuy ut renfort mais saa su nekk mais mon monastir mos ngeen ko gis mu jël ay dem ni monastir li manqué rek la yu mm. saa su nekk benn cinquam bu saf-saf bu ñuul ku ko di concuwaate lay indi ren rek la jël nii Ibrahima Thomas mais sinon soudanais bi la daan jël waaju ngan da jël ponkal boobu dama sànni hmm? ah? koo jox freedom boo xam ci match bi parce que dañuy indi dañuy ba pare di la kii di la jéem a xool boo raxee benn sax ki mooy lan ah Youssou nee na Youssou nee na Youssou nee na Douane proposé nañu Thomas contrat mais dañoo jubóowul quoi ci prix. proposé moo ndaw. ok ok ok. mooy information Sénégal yi moom. suñu la doo dugal Youssou foo kenn kenn kenn dugg. exact. ah xaaral génn xaaral ma génn waa Granada. waa Granada. yus yus yéegal. gis yow i Pape démb euh, kii euh, nu mu jaata Diop jaata. Euh, ah, moom côté boobu soriw fa. soriw ko côté démb yow ne ko saan na mas bi sax. non jaata seet nit ku baax nag. baax nit ku jaata. mais nag ndiim yow war nga di dugal gaa yooyu parfois da ay. mosoo nelaw nelawoo de naan damay nelaw. yow daa jënd daa jënd yow yéega booy. Eh. come on. Eh, ndiim ay jaata yooyu kii ki muy wax war nga leen dugal ko prytanée militaire la génnee crack la. non tamit parfois. man man amu problème de. na ñëpp dugg baal yàlla man ku ma xam la yóbbu surtout parfois parce que gars am na ci ñeen ñoo am xam-xam quand ah, sincèrement parlant kooku muy wax ne borom baax dëgg la quoi man mm-hmm. ak tamit ñeen ñi nga xamante ni tam doon nañ doon basket jékki-jékki di bàyyi ay Mamadou Mamadou léegi mu ngi ci beneen monde xam tam reconversion bi et yooyu tam da baax non même Mamadou gars man man yi nga xam ne sportif la ñu mooy la xam nga nag li ñu koy def du soit benn benn yoon am jot boo xam ne dinaa ko mën def laay constant constant constant ngay sélectionné ñenn ñoo xam te ñoo nekk dans la doon basket jékki-jékki bàyyi wala dara nga kii leen quoi non bilaahi yooyu tam na ci baax même ba ci bàcc bàcc basket na tamit bàcc da nga koy dugal mu war mais i maasal tambe maas yow xool <laughs> taw lu mu moom ak tamit lu mu bëgg <laughs> baatu dafa neex yus na nga jox yus na nga jox ko dañu jubóowul ah mën naa am dañu mën naa am aussi liñ ko jox moom li wax li wax bi mu fa jógee mhm. que liñ ko doon jox dafa ndaw par rapport ak Monastir li mu ko jox premièrement ko liñ ko li ko liñ ci boppam ak gars yi après li ko doon jéem wax naa ko booy jàpp ci affaire yooyu jàppal bàyyi mu ne ok tegal ko ci këyit gars yi ba léegi teguñ ko ci këyit moom looloo tax accepté wul dil boobu noonu. Ah, bu ñu explicitement. kaane li fay ko offert bi ñëw tamit. xamuñ ko fay vraiment nag. que il faut avouer que ne euh, douane tamit joueur yu mu jël du ñaay joueur yu ndaw ah, fay na leen de. il fay na fay na xaw ma joueur xaw ma joueur vraiment mais parce que kenn ki moo dugaloon première édition bi moo dugaloon presque cinquante points. waaw ñoom ñaar ñëpp ils sont connus keneen ki ah. Monastir la noonu. waaw ah, mais parce que offense donc su genre compétition yi dafa am offense ak défense boo xam mhm. offense donc mu ta dox. waaw c'est vrai aussi. yee Mansour. Mansour kay yéeg. préparé wu ma dugal. yow kan nga bëgg a dugal ni Mansour. waaw nga ba de waroo nga live de niveau lañ ne woon ndim niveau lañ ne woon niveau. bàyyi wu ñu rek maa ngi nuyu. asalaamaaleykum. maa ngi lay a bàyyi. maa ne. non mu ne lan mu ne bàyyi ba affaire yi ñaar la cee parfois da ngay wala affaire bi bàyyi la. non Abdoulaye bàyyi incha allah non mais moom dese ma bàyyi incha allah. Hmm, ndeysaan. sama gars yi nag. ma la fi jàmm. mais mais maa yow yow bool bi bu ko tëjee de. waaw bu ko wax bi wax bi day dagg quoi. ma ni baal bi baal. allo yaa ngi dégg. seereem day xoosu de. petit waxoon na la ko de. defaraat sa kii bi nag quoi. defaraat sa affaire après ñu ñëwaat. ñu lay jàppale. neexul jàppale Mansour ah Mansour neexul jàppale. Mansour neexul ah. neexul jàppale de. xel na. borom balance. mais ndim benn jour. nee na daa waa ji dimbalal waa ji waa ji nee na dans quelle chaîne on peut regarder le match. ne ko situ situ situ bool bi. nee na situ bool bi. seen website bi bu baax wala ñu dem seetaan ko. heure bi Sénégal yu bëri fii la ñu waroon toog booy ñëw seetaan match yi bilaahi jàng mais booy ñi seen gaal mais nag mais nag sànq sax maa ngi leen doon dégg ngeen wax benn affaire bu am solo gis nga Marius Ndiaye man je pas pour que gars yi ko Marius Ndiaye moo gën a jege gars yi. Marius Ndiaye moo gën a jege la moo tax ñu mel gars yow ba yow yow état bi ñu yóbbu ba la. loolu loolu xanaa ñun ñii sax suñ doon seetaan suñ bopp sax. est-ce que lañ koy jaral yow yow yow yow dëkk dëkk bu toll Dakar. dëkk jëm bi affaire bi xaw ma ñaar jox ko fan. kan may dem sori de. non mais man loolu laa wax Ndiol man maa ni Marius Ndiaye dañu ko war a toj defaraat ko dafa ko stade boo xam ne stade bu mool lay doon. wala ñu may wala ñu may wala ñu may ko parce que parce que day jéem a def kolo kolo. ñu may ko ñan. parce que comme ñoom fédération bu ñu mënuñoo taw day tere. yee waa ji ñëw na c'est peut-être waa Mali waa ji xam ngeen ko. dans ma chambre. Yo! Salam, salam alaikum. Ibzo! mu? Ibzo, na ko fe, xos na ko wax na leen wax leen malien leen defaral booy nii. booy dëgg non mais malien yi ñoo ko nekk di ko jàpp sànq ba léegi. xool xool ko tiré fos. c'est que gars nii dañu kii dañu mer mais xam nga bal bi c'est les règles de la balle balle bi du règle FIBA de faut pas oublier ça boy. waaw bi. c'est les règles de la NBA avec les automatismes de la FIBA donc dañu am seen règle yi nii comme gars yi dañuy mer faute xumalan technique booy bàyyi leen mer bi jëlee jëlee leen marché bi ngeen lekk wér. <laughs> Eh, en plus en plus mon gars euh, Thomas xam na compétition bu ñu na ko joué waat ko. ah xam naa mais gars yi nii sax Monastir xam nañ ko. waaw waaw. c'est là où neex na nag de six points d'écart bi neex na de mais dama doon déglu kii seen seen live yi nii tout à l'heure là par rapport aux histoires du Sénégal les pays qui vont jouer tout <clears throat> gars yi mënuñu fait il y a trop d'orgueil dans nos pays surtout en West Afrique là Sénégal Mali Guinée tout ça on est trop orgueilleux on est trop trop orgueilleux sinon euh, c'est vraiment avec le talent qu'on a en West Afrique de l'Ouest les pays de l'Afrique de l'Est doivent pouvoir amener la coupe à la maison, wallahi. Billahi. Il y a tellement de Sénégalais qui jouent bien au basket, qui sont partout dans le monde. Ils sont versés à gauche, à droite. Emmène-les. fay leen gars yi nii jox leen xaalis ngeen ñëw. ngay soog a étranger bu baax complété leen ko jëlee leen coupe bi way. te li ci gën a grave mooy ñi ngi ñi ngi opportunité bu grave parce que bool bi séance la troisième saison bi la. lu muy gën a dem équipe yi gagné ñooy continuer di gagné parce que ñu xam laaj routine bi nu muy demee waaw donc bu ñu bàyyee laaj équipe yi gagné ñii ñoom mën a assurer di gagné di gagné ñoom ñoo gën a xam yoonu gagné waaw te dañuy am xaalis ñu mën a fay joueur lu gën a baax déwén waaw c'est ça de mais mais mais mais mais mais mais mais mais Ndim man dama lay wax sama copain bi ñoo nekk ndoo woon Kigali xam na bu baax li may wax mais monastir boo leen fréquenté xam ne ñu ngi beneen niveau ñoom moom bi ñu commencé liggéey bi yàgg na. oui parce que c' est des professionnels c' est des professionnels ñun pour te dire bañ demee Kigali dañoo nekkoon foofu en confinement ñoom si ci balcon bi lañ doon entraîner ñoom ak seen préparateur physique yi. waaw di def ay vidéo call xam nga li may wax yow ñoo fa newandoo woon tu vois gars yi ils sont dans un autre niveau ils sont dans un autre délire. c'est même pas la même chose même ils ont leur staff nous on avait des entraînements optionnels yoo xam parfois le le coach ne se présentait la nuit te ñoom dañ doon entraîne di def vidéo et tout affaire tam bokkul de je t'ai dit qu'ils voyagent même avec leur table de kiné c'est une table de kiné massage dañ ko dañ ko jël voyager ak moom ah. c'est c'est un autre niveau ils font des speaking ils font tout ça de naare ah non mais mais mais naar ñoom xaalis dañuy investir man Thomas mi may expliqué ne ma ne ma ne ma seen président bi daa jël booy bi yóbbu ko seen hôtel hôtel boppam ñoom fa lañu logé fa lañu dëkk mu jox booy bu nekk suite ne ko toogal fi nekkal fi te gars yi match bu ñu gagné leen jox prime so they pay them to get money yow meneur menacé bi fii la nekkoon Bétis ñoo ñoo bokkoon équipe daaw jéeg. ah ouais gis nga. c'est pas. Randal. Jalop Randal. waaw. gars yi dañuy. baax naa de gars yi dañuy jënd baax de saa yi. baax dafa baax booy bi. booy bi baax na de meneur bi. il a le mid-range dafa am trois points dafa am organisation il est bon de. Mm-hmm. non bool bi am na niveau de c'est du niveau de am na niveau de. yow gars yi troisième quart temps bi man la. ah match. bi mu ngi commencé daaw sama gars yi ne merde <laughs> oh là là mais Douane kan lay joué. waaw si suba wala ginnaaw suba. awa ceeb daal. xam naa dimanche euh, euh, mardi la war a joué ak Thomas moom loolu leer na xam naa loolu du ma ko taal. petit bu ko taal rek boobu du ma ko taal bati boobu ngir yàlla Pape Mbaye bu ma ko fàttee message ba dimbali ma rek Pape. <laughs> bu ma ko fàttee message ba. bati boobu bu ma ko fàttee message ba rek. xanaa

parce que l'année passée Duc bi dafa doon remplir ci ci suuf foofu de. mais Duc Duc dañoo am supporter dañoo am supporter bees de Duc étudiants yi ñoo ciy jàpp gars yëpp dañ ciy jàpp seen campagne bi moo gënoon baax je pense que par rapport ak campagne yu advertisement bi mais pourtant Sénégal c'est une terre de basket Sénégal gars yi basket de ça m'étonne que. léegi affaire bi mu ngi changé même basket bi. léegi dafa Sénégal basket bi mu de mu ngi dee bu baax sax. changé ah bon. non mu ngi dee bu baax. non man je dirais pas man je dirais pas que sax mu ngi dee parce ñu ngi supporter équipe nationale ba léegi mais comme li ma doon wax rek dafa am benn travail boo xam te. pour équipe bi parce que parce que ah, gars yu bari tamit. gars yi gars yu bari tam ils ont du mal même à savoir xam nga. su góor bi desee tuuti nii rek lañ ciy xam dara mais tey jii. man daal pour man am lépp ci mbay mi ah, ok kon xam nga génne la dugal bi après ñëwaat. mais loolu booy man je me rappelle quand j'allais au Sénégal là booy Marius Ndiaye dafa doon fees. Marius Ndiaye doon fees neex barki yàlla neex. yu jaajëf jaajëf sama gars yi siyaar naa leen de. jaajëf naka mu mais Pape naka mu jaajëf waay. <laughs> yow gëj naa laa gis capitaine. maa la raw naa yaa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax a baax xam naa la. jaajëf waay maa la raw waay. jaajëf jaajëf naka Granada yaa ngi doxal. ah mi ngi nii rek de mi ngi nii de. mais yow léegi xanaa yaa ngi wax espagnol nag. waa tuuti de un poco un poco. un poco un poco. maa ngi commencé miin de. yaa ngi miin ndànk ndànk. waaw waaw waaw maa ngi commencé miin ndànk loolu la noonu lépp jaam ça va ça va nice nice nice yeah nice was sixty forty nine so far quatrième quart ah, sama gars yi dañu sonn waaye oh, suñu manière li ñuy toggal maa fi nii yeah non dañu sonn dañuy toog maa fi rek ñoom sax mu ngi lekk maa <laughs> <laughs> mais yow mais après yow da ngay jàppale leen de. ah man dama laajte gars yi nii dama laaj parce que fii suñu playoff bi peut-être mais lay jeex donc dama laajte mais gars yi nee na booy a Kigali mënuñu mënuñu ajouter joueur ils peuvent pas ajouter de joueur tu vois. si ils peuvent ajouter non dé la liste des quinze joueurs qu'ils ont donné au début de la ligue ils peuvent changer ces joueurs là mais ajouter un joueur dans la liste ils ne peuvent pas. Ah, ok. Mais okay. fallait. il, il, il devait il dans, la liste nom 15, dans, la, quoi. Waouh, mais c'est ça que je voulais. Mais Hamga, man, Hamga, yo, juste, tu étais en France. Dans en France, nous, nous sauf équipe unie. Nous n'angou. Nous n'angou bahila, boy. Right. C'est ça. Yeah. Nous n'angou. Mm-hmm. Mais, mais, mais, dans les tangles, dans les tangles que tu gagnes, dans les dem. C'est sûr. Boy, problème, moi, Hamga. soo soo tàngal dem après sa réputation bi ça touche un petit coup quoi. Euh, ouais, ça c'est vrai aussi. Mm. soo demee foofu gars yi dinañ wax bon ok c'est un bon joueur mais ok si la balle commence à jouer il va partir donc gars yi dañu réticent après signer là quoi. Ouais, ouais. Ça, euh, tu vois balle bi du da ngay dem balle ba pare jouer def sacrifice gars yi commencé def seen affaire u kon xam nga yam mu ngi doon xam Afrique moom. c'est pas c'est pas structuré waaw ah, mais nag yow boos na yow mais yow nag boos na Mali de. non non non non non man Sénégal man man Sénégalais laa de. mais mais démb Douane ils ont bien joué j'ai pas regardé le match. non booy Douane booy. booy Douane ah non. man moom j'ai eu et retour quoi man seetaanu ma ko personnellement mais gars yi moom dese nañ kontaan na. mooy man dama parce que apparemment parce que apparemment équipe bi dé déggoowul noonu quoi équipe bi déggoowuñu mais bon c'est normal aussi. genre une semaine de kay ma expliqué la kay ma expliqué la gars yi dama seetaan match bi bàyyi lépp booy. j'ai regardé le match depuis le début non seulement ça ne défend pas ils ne sont pas ensemble ba pare ce que je ne comprends pas c'est que vous avez deux scoreurs il y a qu'un seul ballon il y en a un des scoreurs. qui n'a pas le ballon, il peut défendre. Il sert à quelque chose. L'autre, <laughs> sans ballon, c'est un plot. Hamga plot. Un euh, plot, yep. Struggling. Sans ballon, plot. Boy, nous dara, nous sa slide. Hamga pas latéral, ça nous ko. Donc, les gars, coach bi tamit coaching bi sama sama xalaat la coaching bi dafa des parce que coaching bi soo amee benn gars qui ne sait pas défendre da nga ko protéger. Mm. tu fais une défense en place qui pour le protéger. Ouais. tu fais une match-up, tu fais une ou un truc comme ça pour protéger le gars où les aides peuvent venir. Mais boy, gars, il y a tellement qu'ils ne sont pas ensemble. Rotation simple. Tu sais, les rotations à 3 là, quand vous switchez là, simple, hein, gars, mon unico. Bapere, ça m'a gagné ici, Bambi, Bara. Yeah, les gars là sont sur no, le banc. Bro. Ils sont sur le banc. D'où les Jocklen minutes, n'y Jocklen comme minute. Gars, ils sont pour pour prouver quelque chose. Ils sont pas là pour ramasser leur argent et partir. Mais ça m'a fait mal qu'il n'ait pas joué. Il n'a pas, a pas fait tourner son banc du tout. C'était dommage. Bah, like. Il n'a pas joué Non, minute sax gisu ko ci terrain. te pourtant Baara nag Baara ku ko xam-xam ne nag joueur bool la de. ba pare guerrier la. waaw parce que daaw daaw daaw saison bu baax la def. ba pare dafa ba baara dafa mbaame quoi jeu moom mën na jouer fii carrément. moom da doon ba pare il est fiable il est fiable dafa am dafa fiabilité ci trois points. dafa constant donc non seulement. il va défendre parce que première saison bi su ko xoolee. il a fait une très bonne saison. première saison balle. Kigali waaw. il a fait une très bonne saison donc jox ko ko chance. dafa am expérience bu balle déjà. tu sais le problème de tout ça c'est que après li moo tax parfois ils ont du mal parfois benn équipe gagné waat dem baal parce que parfois day indi frustration boo xamante ne baal bi bu jeexee booy ils sont tellement frustrés ba nga xamante ne loolu parfois day jur frustration parce que booy gagné championnat bi après su fekkee amuñu minute même si nag beneen niveau la quoi il faut qu'on se dise la vérité mais un gars comme Baara man pour man a expérience bi mu bool war na mën man moom seetaan moom match personnel. Hmm. non match bi moom seetaan kaana bi day sànni mu wala ñu ñu kii mu taxaw il est mu repris défendre taxaw foofu di kaas ak arbitre di jéem wax. mais nag loolu la joué woon ah. moom léegi ñe benn équipe bi ah ABC day tourné bool bi ñaari yoon sànni trois points mu dugg. ñu bàq bu ñu bàq bi fekk na bool bi rombagul half court bi. non exactement jeex na booy gars yi ñëw struggling day ñëw rek bondil bal bi def benn step back bu metti ma ne ko waa ilalla. putain. Hmm. non man seetaanu ma ko ma match bi quoi xam nga ñun démb dañu amoon match. yeah yeah na man match yeah. moo tax mooy loolu. non après même même après niveau niveau ku ci nekk ak ni ngay gisee mais man deux joueurs yi xam ñoom ñaar boole leen équipe ak benn ballon c'est sûr. waaye depuis le début de la saison depuis quand j'ai vu les les les quand j'ai vu les les recrutements là. Mm-hmm. ma ne ko AS Douanes nu mu def nii. ñoom dañuy dem parce que ñoom ñaar kenn du ci défendre. Monastir c'était la même chose dañ koy dugal dix quinze minutes mu sànni bal yëpp def ay score am keneen ki moom bañ ko ba équipe bi muy nekk bool yépp moom moo fay nekk moom kese di dugal day dugal parfois cinquante points sax équipe ba mu perte xam nga loolu tamit ça veut tout dire. ça veut tout dire tu vois il faut mettre un, tu peux mettre un scoreur et tu mets des joueurs complémentaires autour. parce que les, euh, le cas de Monastir là Monastir lim ñàkk rek lay uti ah saa su nekk chaque année lim soxla rek lay uti. parfois benn lay jël sax wala ñaar mais lim soxla kese lay wuti. Ah. après ñu ngi doon wax par rapport ak euh, comment dirais-je waaye Thomas Sànq mais man xaw ma ne woon sax defal nañ ko proposition mooy Sànq li nga bind Youssou quoi. waaw si si si ok non defaloon nañ ko proposition bon après jubóo ñu si prix affaire yooyu noonu. si wax na ma ko wax na ko you know xam nga affaire yi moom. bu ah. ñëwee si ay affaire prix yooyu rek doo si mën a wax quoi. non lu la gën a. c'est man sama xalaat mooy ci affaire bi c'est vraiment en fait Thomas c'est un, le joueur le joueur c'est un joueur de calibre tu vois am na yeneen bro quand tu vas quand tu vas chercher un joueur comme Thomas bro mets, mets le prix like do something you know like mm. tu sais très bien c'est quel joueur ce qu'il va apporter look at tu vois tu sais il va apporter quelque chose de géant il est polyvalent il est grand il défend il trois points Et puis, c'est un Sénégalais qui va te permettre d'avoir un joueur de son calibre pour pouvoir ajouter un autre étranger, tu vois. Mmh. Il faut juste. Ouais. tu réfléchis comme ça, affaire bi day yomb. c'est ça. non ba pare sànq par rapport ak li nga doon wax Pape xam nga ñun dañu différencier ak yeneen kii euh, dëkk Afrique yi mooy yeneen dëkk Afrique ñoom chance bu ñu am mooy seen jour yu baax yëpp seen localement la ñuy jouer. waaw tu vois genre seen joueurs locaux yëpp presque. il joue en Afrique aussi. Mhm. moo tax te Sénégal boo gisee joueurs yu baax yëpp Europe nañuy joué. waaw donc ñoom seen joueurs yooyu noonu presque seen équipe nationale yi ñoom nañuy si baal bi te ñun suñu joueurs locaux yi ñun nañuy indi si baal bi ñun équipe nationale genre ay bu bëree ba bëri ay ñaari joueurs locaux nga si gis. tu donc euh, moo tax niveau yi du mën a bokk quoi. mën a mhm. ñoom foofu rek la ñu ëppee chance. mooy que ñoom. dans seen jour yëpp seen seen dëkk yi dañuy joué. donc xamante nañ miinante nañ genre c'est pas comme te jii nii nga jël benn équipe bu douane après boole si ñaari américain ne lañ dem leen joué tu vois bu doon sax sélection Sénégal lañuy def sax jour locaux yi peut-être dina gën a tane. mais xam nga tamit doo nangu tamit sa jour sa équipe qualifiée ba pare. nga qualifié loo équipe bu baax ba pare ñu jël ne ok léegi léegi dañuy tànn jour ah, locaux bu ah. nekk si même école. ah loolu moom beneen problème lay hmm, nekk. Hmm, hmm, loolu moom dëgg la. même si nag am na dëkk yu koy def ah, parce que. non ni parfois man man man tey jii nii genre bu ma nekkoon coach bu war a dem baal man loolu laay def genre jour locaux yi damay tànn jour locaux amul kii maire amul kële maire. waaw waaw parce que Sénégal la ñuy représenté. waaw bu sport mënoo kenn Sénégal la ñuy représenté genre. mais ñun ah, histoire Sénégal la ñuy représente donc il faut essayer nga am équipe bu gën a baax possible tu vois. Ah parce que mais Mali def na lool de pourtant def na lool de ci ay si seen qualification bi fédération moo ñëw wax leen équipe yu nii bon équipe bi ice nee naan ice police dafay dem bal soo soxla benn joueur libéré leen ko mu dem joué bal bi parce que mu ngi représenté Mali ak représenté. xam nga mais même Sénégal sax c'est comme ça ah Sénégal genre. ils ont le droit de le faire. C'est juste parce qu'ils ne le font pas, hein, mais ils ont le droit ah, de okay. prendre des, des jours. Hein. Il y a une équipe. yombul daal après def nañ pas après def nañ parce que man gis naa coach pa bi invité coach comment dirais-je. waaw loolu rek c'est aussi il faut le saluer. non c'est sûr c'est sûr yàlla nañ dem ba ñun suñu xel toll ci xam nga def comment dirais-je ba ñuy def la parce que en fait Sénégal ñuy représenté te man xam nga Youssouf yow yaa ngi Espagne tey Espagne gis nga mm. ni ñuy prôné seen doomu dëkk tu vois donc loolu tax ça te fait un peu mal que tey ji man tey ji lu may lu Sénégal su ma yoroon team wala dara même si après il faut tamit ñuy relever niveau bi parce que tam c'est un business mais man pour mm. man Sénégal lu may xëcco keneen rek nañ favoriser lu mu déedéedee seen Espagne da fay yaroo yor seen passeport rek yëpp mais dañuy prôné seen doomu merci te du dara man ce qui est normal ah? yaa ngi Granada xam nga li ma la wax bu baax a baax. tu vois normal surtout espagnol yi français yi sax léegi ñu ngi ci ñu ngi ci mindset boobu donc ñun ñoo war a mën a tu vois ba ci yéene xaalis bi dëgg la après domaine xaalis dafa complexe ku nekk ak li nga bëgg ak li ngay jar tu mais tey jii hmm. sénégalais bi bu bëggee dara dañu war a xam nga ñun ñëpp ñu jàpp ci quoi tu vois même si tamit am na am na am na ci cas ñoo xamante ni boo leen joxul dara sax dañuy dem pour dimbali Sénégal parce que lu ñuy delloo Sénégal njukkal la ko tu mm. vois mais tey jii ñun lu ñuy xëccoo parce que tey jii nañu xam dëgg genre deux killers yi et tout après si tu te qualifies day kii ah kii la nu mu traité waaye. a waste of time. ba ouais. foofu laa mm. bëgg a waxee quoi foofu laa bëgg foofu laa bëgg a waxee te bool bi ñun dañ ci war a gis suñu bopp parce que am nañ chance président bi sénégalais la majorité taf bi staff bi ñëpp ay. sénégalais c'est pas normal jii moom ñuy dem genre. ren je pense que objectif bi mooy foog ñu jéem a dem lu mu bon bon ba demi finale tu vois c'est ça parce que munoo munoo di organiser sa dëkk trois ans d'affilée après je vois waaye dañu match de waaye suñu passé premier tour boo sa waxal alhamdulilah donc mais guys guys gars yi seetaan mu ñu fàtte ne fii ñaari gars yi joué bool a Mbaye joué na bool AS Douanes ak euh, nu tudd ak Ibzo join na bool tamit ah Youssou xam nga international sénégalais la et tout ça mi ngi joué Espagne gars yi tamit mi ngi joué France ñoom ñëpp donc ñu ngi découvrir lay match eh, AS Monastir bi ak police bi score bi laaj quatrième quart-temps bi la cent et soixante si ñu ngi waxtaanaale esprit à partage la esprit vibe la mm-hmm. en toute familiarité ñu vibe si la ah dinañ ko kii dinañ bàyyi seetaan seen deuxième match bi bala ñu kii quoi peut-être match bi mooy loolu xam nga. <coughs> waaw xam nga premier match bi tam peut-être day nekk pression xam nga. c'est ça waaw tu Sénégal ngay joué sa mbokk yi dañ lay ñëw seetaan si ku ne day bëgg ñëw wane tamit bool bi tamit il faut tamit gars yi xam ne surtout joueurs locaux yeeg yooyu joueurs locaux mm. joué na bool def performance suñu toll ngi France donc du coup pour locaux yi tamit c'est une. benn kii la pour pour wane seen bopp donc loolu tamit comme li Youssou di wax genre gars yi pression bi day am famille baa ngi fii ñëpp dañuy mën a ñëw seetaan stade bi tamit gars yi góol ba góol lañ fay dem loolu tamit il faut l'évoquer ah boo joué Marius Ndiaye teene ñi ko tàmm nee nañ da ngay tarxis bay bëgg a dee tey nga bëgg a yóbbu sa bopp ci euh, Dakar Arena c'est chaud ko xam nga hmm. mais wax bi foofu la tamit booy moo tax j'ai dit que coach bi tamit il faut qu'il donne la chance aux joueurs locaux parce que les joueurs locaux Ils ont prouvé qu'ils sont, ils peuvent jouer à ce niveau. C'est eux qui se sont qualifiés pour la balle. Ils ont fait une saison à la balle. Le Duc est venu aussi à la balle. Ils ont montré qu'au Sénégal, il y a du basket. Donc, Jocelyn a une chance parce qu'ils vont se battre parce qu'ils voient. Nous, comme les Américains, là, ils viennent, je prends mon argent, dem Non, nous, am subo. Donc, Jocelyn Chance, ils vont se battre, ils vont plonger pour les ballons, ils vont prendre les rebonds. Il faut ah, leur donner la chance. ni démb bu duwaan jëloo booy booyam yi ñu gañe match bi. billahi man tamit pareil. Youssou real talk fi lañ toog seen match bi ñun ñii ñëpp de ah ak Ibzo gars yi mais ak Thomas mais bu waaye dugaloon gars yi ñu gañe. soo gisee match bi ABC ABC boobu Ivoiriens yi nii c'est pas leurs étrangers qui ont gagné le match c'est les locaux ah. ak ñoom Fofana ak ñoom. Euh, comme il s'appelle, eh, Aruna, Nyom, euh, euh, euh, Konaté. Nyom, c'est des joueurs qui jouent en Afrique, gros. Mm -hmm. C'est des joueurs qui jouent en Afrique. C'est eux qui sont venus, ils ont dit, boy, Jock Lengay Bagaz. Là, il a. Non, mais comme ta as dit, c'est le premier match, il a la barre On va, on va voir le deuxième match, peut que ça va. Mais moom parce que suñu nekkee di wax troisième édition moom jot na moom. tu vois genre waaw ah, waaw ah, minimum minimum minimum am. sincèrement pour basket Sénégal fi mu toll. ba pare gars yi dañu war a tamit yaatal affaire yi xam nga fii am na fi ay joueurs yoo xamante ni ñu ngi fi barke yàlla boo leen proposé lu baax dañuy ñëw sax parce que tamit il faut tamit ñu jéem a relever niveau championnat Sénégal c'est très important aussi. xam nga gars yi nga xamante ni dañoo pare pour dem bool kuñ ci signé nga dem championnat Sénégal dëggal sa bopp. Mhm. jouer tu vois mine parce que ci la mais ça jeu dama amoon benn gars ku joué avec Nigeria là on, a joué ensemble en Chine il m'a dit qu'il allait à la balle et tout ma ne ko booy soo demee balle damal teel dem ngay joué quelques matchs foofu ma ne ko parce que basket africain bokkul ak seen li basket bi li xam et tu vois aujourd'hui regarde le match d'aujourd'hui qu'on regarde là AS Police Stade Malien contre Monastir tu vois le match il a tellement de balle perdue, c'est brouillon, ça jette des ballons à gauche, à droite. Tu vois, da ngay foog ne gars yi xamuñu basket mais xam leen basket c'est que basket bi mooy kii <laughs> doy dafa doy waar daal. xoolal lii basket bi bokkul. bokkul donc il faut nga dem jouer deux trois matchs championnat bi xam mine affaire bi ngay soog o dugg ci balle bi tu vas voir ce qui se passe tu vois. mais Mali tamit ñu ngi def job bu naaj ah. sax def job bu naaj. non. boo gis ay seen petit catégorie bi commencé yéeg nii man nit ñi développé loolu ma jaaxal. man dama ko annoncé de ma ne ko booy ñi ah Mali soo xoolee amuñu euh, tour ils ont pas les gros noms ils ont pas de gros joueurs c'est les c'est les joueurs locaux là qui vont faire le ah. taf booy dama gis seen dama gis seetaan seen qualification bi dama tiit basket bi leen doon produire foofu j'ai j'ai eu peur j'ai dit waaw gars yi dañu dañu jouer comme ça non c'est trop. dañuy teg seen bakkan ah. ah contre Monaco dañuy xeex contre Monastir xoolal score bi 12 points voilà combien. la la première saison Pape daa ngi nekkoon. kii première saison bi Monastir dafay jël équipe 20 points 25 points. waaw <laughs> 30 c'est vrai hein? c'est mais xam nga mooy sànq li Ndim doon wax quoi. mais comme progression bi en fait est-ce que est-ce que ñun est ñu ngi progresser. c'est ça le truc aussi parce que tey jii Mali ku ko gis première édition beeg loolu moom mu ngi beneen niveau nañu xam te dëgg tu waaw waaw mu ngi beneen niveau même ba ci seen niveau recrue seen numéro dix huit. mais ce gars man pour man kooku man deux américains yëpp man amoon kooku pour AS Douane man moo a gën a. c'est vrai. la yor dafa miin dafa miin bool te c'est un excellent joueur. man ba ma gisee seen choix bi dama ne ñii dañu bëgg am dara parce que man fàtte naa sax xam nga turbi bi le numéro 10 là du euh, de tam doon joué démb contre le Sénégal tam dugal vingt et quelques points. mooy Aruna bi noonu. waaw mais il est ba pare yaru xam nga dafa kii quoi joueur la quoi. Aruna la mais booy xam nga boobu produit kii la produit sud la. produit sud. Ah, kii dañu nekkoon ci kii xam nga BS BS BS boobu Babacar kii école basket. Babacar Sibi. Oh, waaw. moom ñoom Thomas. waaw an Thomas moom ak eh, kii ñeneen gaay nii Karim Diop tous ces gars là bon da nga gis ah xoolal kii pour soutenir Pape lu mu wax nii gars yi nii on était peut-être sept ou huit xam nga léegi ku continuer jouer basket on est que peut-être quatre à continuer basket gars yi yëpp bàyyi basket. Mm-hmm. bon loolu da ngay gis des talents talent bu baax a baax mu ñëw mu dem ci kanam di décourager ci jeu basket xam nga loolu c'est it's not good tu vois. c'est c'est c'est dommage pour le pour l'Afrique en fait c'est dommage pour. Babacar Diop ku naas def. yéen ñoom moo fay. ñoom mm-hmm. Amady. bon i i dafa créer benn groupe bu talent boo xam ni ba léegi ñoom ñoo imposé wu. de des des bandits bandits rek. mooy bandits kay la defar mais bandits yu mën basket. <laughs> astafurlah euh, non mais moom il faut affaire bi mu ñëpp ñu jàpp si quoi. il parce que. non mais c'est bien aussi parce que xam nga par exemple je prends l'exemple de France. parce que fii la gis France da ngay gis équipe équipe africaine yi nii tu vois les joueurs qui qui viennent pour représenter déjà on te donne pas le bénéfice du doute fii Afrique moom soo yore passeport sénégalais malien yooyu noonu camerounais. booy gars yi dañ lay jox benn test. parce que ils vont pas que ils vont pas croire que mën ngeen basket. Mm-hmm. dañ ko kii dañ la minimiser yooyu noonu il faut que tu fasses tes preuves. donc maintenant ces gens qui viennent là avant nous il y a des gens qui sont venus ils ont fait leurs preuves un bon comportement professionnel ils ont bien joué du ñu saaga du ñu naan sangara du ñu génne yooyu noonu. Mm-hmm. léegi génération prochaine génération ñoo def pareil ñun tamit on est là on essaie de faire pareil maintenir la. la, la chandelle. Maintenant, les, la génération à venir, il faut ñu ubbil porte yi pour génération à venir wax leen ko da ngay ñëw jouer extérieur bul fàtte so sa dëkk woo la damal jouer parce qu'il y a beaucoup qui veulent plus rentrer jouer avec l'équipe nationale. Ouais, ça aussi c'est un problème. c'est un problème. mais bon xaw ma yéen seen cas mais ñun suñu cas tam daf complexe rien que de. de suivre les émissions de Rapatak rek tu sais ne camp bi dafa complexe tu vois non ni nga fiy jugee et tout tu vois dafa complexe quoi ndim yoo xam nga li may wax kaw dafa dafa dafa dafa complexe dafa complexe dafa alors a yoo xam ne da nga yéemu ci alors qu'on a tellement de joueurs c'est dafa complexe gis ci yoo xam ne daf lay yéem ci yàlla loo problème la Sidi asalaamaaleykum come on waaleykum salaam eh boy naka noos eh Pape Mbaye maa ngi ziar eh kooka la Sidi la mais nag mu taxoon ne kanam gi si tu ne sa caméra mooy benn dof la rek xam nga ko boo gisee di nga xam quoi dof dofu saam bi la quoi dofu saam bi ah ouais Sidi wax nga dëgg lépp jàmm waa Sidi le national malien maa ngi ziar comment tu vas salaamaaleykum ça va ça va bien lan moo sax yow. moo jaaxal ñëpp. man nan maa jël c'est aussi simple que ça. <laughs> xaw ma dara non non Sidi gëmuma lool da yow Sidi Sidi yow tey affaire preuve quand bu dul bu dul équipe. Sénégal sax gaa war a dem. Sidi pro yow bàyyi ma kat bu baax. mbay mbay. waaw c'est Ndim bu ma sonal gaa yi dañ maa jëlul maa ngi woon fii bi ñuy wëri seen i joueurs fi lan ma romb ma chaque jour maa ngi ñoom ci stade bi jëluñu ma bàyyi ma dégg nga waaw. mais Thomas. Thomas maa ngi. Thomas mu ngi def. booy ma jëm moom gisul bu la ma jëm man damay ba match bi jeex mu dugg dégg ñaan après match bi nga dugg wax sa xalaat. bi jeex na. après match bi nga dugg wax sa xalaat dafa ñaan. waaw waaw yal na yàlla dafa taw dégg nga ma jëm bi kay jeex na. match bi one minute moo des. Eh, mais gars bi day calculer tamit quoi. mais yow moom yow moom yow moom kii comment dire waaye. ndiim. waaw moom day ci jàpp rek di insister parce que affaire bi tamit ça ça demande l'implication de tout le monde. non bilaay parce que benn drapeau la ñuy représenté et tout. waaw yéen porteur de voix itam ndax fii ñun ñëpp sax ay porteur de voix mais am na ñeen ñoo xam seen baat fi ñuy egg baatu ñeneen ñi eggu fa. Mm-hmm. donc. impliquer tout le monde ñëpp di wax seen xalaat et que tamit ñuy ñuy passer à l'acte mm. c'est très important du question que ne nit day dugg man damay suivre fii ku ne dugg na fi dañuy wax jàll kii mer jàll man a petit ñu ngi si doon waxtaan mm-hmm. kii day wax def nii kii wax def nii mais il faut il faut tamit suñu waxee ba pare ñu jéem a mettre en place quelque chose tu vois mm-hmm. parce que Sénégal bari na ay am na ñeen yoo am parcours yi extraordinaire te jaar ñu sax équipe nationale mm-hmm. ñëpp dañ ci war a jàpp man man man je trouve que même même président fédération et tout war na mën a génn nekk ancien basketteur mais xool leen loolu kenn la ci dëkkam te xool li muy li mu nekk def équipe boobu mi ngi def job bu te kenn la kenn la ci dëkkam tu vois bariwu fa jàppale bariwu fa dara il faut ñun ñëpp ñu jàpp mais Sénégalais on est tellement dañu bari nañ kaar macha allah mais il faut ñu passer à l'acte di teg ay structure <coughs> gaa ñi bañ ñoo kontoon te xam ne tamit ñun suñu image la ñuy représenter même ba ci fédération ba ku mënti doon mun na dooli benn affaire. Mm-hmm. xam nga xam nga looy dénk c'est un ancien basketteur et tout mais moom ci dëkk bi ñëpp àndaloo ak moom. tu penses sérieusement que si les anciens basketteurs viennent à la fédération du Sénégal ou du Mali pour essayer de prendre les choses en main pour essayer arranger affaire bi tu penses que pas ngeen ko nangu duñu nangu affaire bi merci mais addina dafa toll ñun ñun ñun ay Baye Fall lañu addina dafa toll waaw non mais kay ma wax la nit boo ñaanee may ñu la da ngay këf est-ce que yaa ngi tey ñun gars yi suñu montré ñun tey si on parvenir à mettre une organisation solide waaw def ñoom niñ koy demee dem toog ci média yi est-ce que yaa ngi wax ne ñun laajuñu sax paie. soxlawuñu sax xaaj Sénégal mais liñ bëgg mooy ñun suñu basket jaar yoon. parce que affaire bi c' est l' avenir de nos petits frères qui est en jeu ngi lay expliquer maa ngi lay expliquer Mali lu mu def. Ah, dara dara y aura plus y aura plus jamais rien de plus grand que ça tu sais nous on avait on était deuxième de notre groupe nous on était à trois matchs de la qualification à la coupe du monde mais ouais. gars yi on a on a refusé de jouer pourquoi parce qu'on faisait des revendications on veut que Sanu Xaalis bi jox xale yi nii dem xale yi nii dem ci coupe du monde euh, finalu coupe du monde U19 ga yi touché ñu dara jigéen yi nii seen xaalis bi dafa en suspension ñun deux ans de salaire ou bien deux ans de prime en suspension xam nga loolu je pense que loolu rafet na donc on s'est concerté entre nous on a dit boy on va faire une grève que les gars ne vont jamais oublier comme ça dañu ragal comme ça la prochaine fois dañu ragal def leneen mais tu sais qu'on a fait affaire on s'est fait suspendre, on s'est fait insulter d'un petit plateau télé waa tout ça confrontation tout tout xam nga finalité bi mooy lan ñu wax ci jour championnat bi gars yi bañ bañ leen jouer ne jouez pas sans vous il y a pas de président de fédération il y a pas de président il y a pas de basket sans vous ñoom si vous êtes en position de pouvoir ne yi nee leen waaw vous suit ñu ngi ci seen gannaaw waaw merci xomalan xomalan mooy deux jours après ah fédération envoyé mémo ci équipe yi nii menacé leen gars yi dem jouer ba mu neex def match ba mu neex booy ça peut pas changer tu t'imagines que la un pays entier a le, la la chance de faire un truc historique de se qualifier en coupe du monde les gars sacrifient pour le bien de la, la génération prochaine mënuñu def booy da ngay andi da ngay da ngay def groupe da ngay def organisation dem Sénégal def ko wax ak joueurs yi nii sur sur le coup ils sont d'accord avec toi da ngay da ngay tourner booy. kii dof dof na man sama <laughs> sama cinquante mille soixante quinze mille laa jël fii dama ko bàyyi. naa naa affaire wu xuma nangu booy. da ngay sonn Thomas man. eleven rebound ten points. eleven points ten rebound. right. booy kill man. well done. booy nangu. duñu nangu. bàyyi nii. seen xaalis bi ci fédération bi tu penses qu'ils vont laisser ça ils vont pas laisser ça boy ils vont pas laisser de mais on garde espoir boy je pense que ça va changer parce que gars yi commencé fort <laughs> ah ça va changer parce que li nga wax dëgg la de barki yàlla dëgg la parce que nit ki ni koy man de dama lay dara fii de suñ dëggalee suñu bopp man xawma Mali de mais Sénégal suñ dëggalee suñu bopp fii mais nag pas teg ko ci violence de dara mais teg ko ci xam-xam ñun ñëpp ñu teg ko ci xam-xam wax les anciens joueurs ay Madiop Madiop maa ngi la gis te live bi gars yëpp ay ay Petit Niang Mamadou Masfal Mansour Kassé tout tout tout gars yëpp impliqué wu ci ñëpp joxe ci seen grain de sel ñun ñëpp ñu manko doon benn saa waay mais dañuy am dara dañuy déglu force suñu mënuloo wax ci seeni plateau télé ñu wax ci suñuy plateforme comme fii Rapatak nga xam te ne on on est tous impliqués ñun ñëpp dañ ciy gis suñu bopp mais dafa jot ah. dafa jot mais suñuy toog naan si dina changer nan lay changer man gëwuma ko boy man de je suis d'accord avec tout ce que tu dis hein. mais je franchement les les mentalités sont différentes dans le pays là-bas parce que gars yi tamit pour ñu def loolu il faut que championnat bi mu structuré les petits gars yi dañu jël tuuti xaalis tuuti xaalis bi lay jël ah te c'est quelque chose de bien déjà pour eux dañu xalaat booy sama defee grève sama defee lii sama defee laa booy sama tuuti xaalis bi laa jël pour sama essence bi sama lii sama lii booy loolu lépp day coupé gars yi du ñu nangu Pape du ñu nangu le le l' esprit de sacrifice du du ñëpp am ko. xam nga tey comme par exemple sànq ñu ngi doon wax par exemple bool bi man je savais pas que tu devais inscrire quinze joueurs mais du moment où tu inscris quinze joueurs bul bul dax bu bul génne kenn ci groupe bi yow championnat Sénégal signal say douze jour su fekkee da ngay complété nga complété maximum trois joueurs en regroupement en déplacement même au match nga yóbbu say quinze joueurs nga joué championnat Sénégal ni gagnal la championnat bi nga bëgg ko jékki-jékki wàññi ko pour un américain ou qui que ce soit kooku day frustré ah. loolu américain du xamagum rythme bi du xamagum jeu bi. waa ji kee moo gën a nekk en compétition fuuf. ba moom mu dem ba indi ko ba fii am na lu mu ko jaral il a le le le dans lui pour gagner quelque chose et c'est ce qui fait mal. booy kaana bi bu ñëwee mercenaire la na ñëw lay I don't know douze mille dollars am quinze mille dollars mm-hmm. mais booy baara mais is is a player bro. that guy legit. c'est dommage. c'est dommage de mais <laughs> comme je dis booy ñu garder pas ñu garder espoir rek peut-être booy man de. mais <laughs> euh, bro c'est compliqué mais Afrique ci ma gars dafa dafa métti dafa métti. Ah. mais man de j'y crois. boy eh, mais loolu am leneen <laughs> xolo kii na j'y crois. non non mais j'y crois du moment où ñu passé à l'acte. man j'y crois pas même man j'y crois. man may def lii. waaw ah, dafa léegi ci. j'y crois moo Ibzo adhéré ci. Mhm. Mhm. li on croit ça on croit xam nañu like génération bu ñëw. ñu suñu génération par rapport ak ñun suñu ak suñuy grand am na différence quoi we want something man de dama lay wax benn affaire c'est que nag lépp loo gis ci kër àddina ak ñi ciy nekk ak l'exemple bi ñu ciy joxe mais fii boo wanee na yow li soxal rek mooy suñu avenir u rak bëggoo équipe nationale bëggoo dara bëggoo ci sax salaire yaa de gars yi léegi ay patriote lañ de gars yi léegi dañuy xeex de billahi ñun ñëpp a bëgg Afrique. bon bon par exemple. mais il faut qu'on passe à la A1 sànq bële mi mi ngi seetaan fii A1 Amérique fii la nekkoon bu ko nekkoon toog fii ah live a soft life like they say mais dafa des dem Sénégal au moins mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi inspiré laay xale yi mi ngi ci équipe nationale bi mi ngi koy mi ngi koy ñafe. boy that's something big bro. all of us like try to do that to go back home. période boobu de bëri ñu ils pas beaucoup les patriotes dont non, tu parles. Non, non, non, dans le domaine du basket, ñun ah, dans le domaine du basket, je pense que c'est différent parce que gars tamit lu dee dee dee ñëpp a ngi sant yàlla quoi man je pense pas que ne kenn ci ñun sa gagne-pain mu ngi nekk ci équipe nationale donc du coup quand on parle on parle pour pour bëgg suñu réew quoi tu vois c'est pas pour des postes ni quoi que ce soit donc suñu waxee déggoo da ciy am te gars yi ils sont maa ngi gis ay majob ci live bi affaire demee bëgg nañ de mais dañoo xamul ban yoon la ñuy jaar loolu nag la ñu war a xool ban yoon la ñuy jaar ñun ñëpp ñu mànkoo doon benn ñun suñ basketu Sénégal ñu ñoo ko bëgg a téel suñu bopp. sama gars yi damay dem di ñëw je reviens tout de mm. am na leen lu ñuy dëggalee suñu bopp sax ñu def suñu ligue privée championnat Sénégal naqariwul a diriger saa waaye nañu waxante dëgg. non naqariwul Rapatak dina dina ko teg. Pape une ligue la ñuy teg ligue boo xam ne laaj si na ligue si na ligue niveau local ligue boo xam ne pour booy lay doon ñu pousser la ñuy jëm ci kaw. dafa man tey tey man prestation yow seetaan nga dem match bi ah. booy Boissy il a bien joué. il Jean-Jacques. ok parce que loolu ça m'intéresse xam nga lan moo tax parce que ñun côté boobu ñun dañ am débit. waaw tey jii ñun ñu am ay meneur yoo xamante ni ñun ëllëg moom lañ dégg suñu équipe nationale dafa am solo. waaw loolu bokk na ci li ma gënoon intéressé ci match mooy comme quoi boo yooyu noonu di jouer bu baax tout parce que tey Youssou Ndoye wala keneen kenn loo performant rapprocher niveau. waaw c' est très important ñun am nañ lépp ay Remy États-Unis am nañ lépp mais gars yi. dafa jàpp bro we got everything am nañ lépp. lépp la ñam lépp man lii musuma ko defam ah. yàlla xam na ni musuma xam naa xam naa ni musoo koo def parce que ni ngay waxee xool ngay waxee waaw ñu teggi daaw ñu teggi daaw da nga ci dama ci doon waxtaan ak euh, petit mu ma ciy wax mais xoolu petit un gars boo xamante ni carrière bu exceptionnel mës ta dem équipe nationale mais dafa bëgg dafa bëgg dëkkam dafa bëgg maa ngi gis ni kenn ku naan siyaar Serigne Bamba fii la mës a joué booy Thiès la xam nga Bamba Gueye Xaadim Gueye. Xaadim xam naa wooyee gars yi dañu bëgg mais bëgguñu équipe nationale mais dañoo bëgg suñu basketu dëkk nekk mais mais je te dis gars yëpp seen plan mooy fi mu toll nii may benn saison wala deux saisons suñuy bàyyi basket dem Sénégal dem joué man Sénégal sérieusement saa yi ma fa demee dem ay duwaa ak yooyu dama ciy tooñ Bamba dama koy tooñ lu Bamba Diallo ma ne ko mais nekk nekk Sénégal di jouer dafa dafa neex mu ne neex na mais am na yu ci nekk quoi affaire demee noonu pour te dire que ni su baaxee ñun ñëpp la baaxal mais ay Matar Gueye xoola Matar Gueye Matar Gueye man je le connais pas mosuma ko gis mosuñu wax mais est-ce que un jeune bu mel noonu am talent chaque équipe nationale ñu woo te lui une passe mais dangay ngay beneen équipe dem jël ko wala dara tu vois même bu lay laaj loo amul sax waxtaanal ak moom. waxtaanal ak moom ma gën a xam daal. ko nga waxtaan ak moom au moins même bu dee moo ko lépp surtout États-Unis yéen daf ci bari booyoo xam dañuy dem foofu parfois duñ fa gis seen place wala affaire demee noonu mais eh, eh, eh, booy bu am doole tu yooyu ñun dañ ko soxla mais il faut gars yi kii quoi il faut gars yi il faut mais instant yow instant yi beneen level ngay waxee man xam naa bu baax level bi ngay waxee yow level level football bi premièrement ngay waxee level level patriote ngay waxee mm-hmm. level boo xam ne koo xam ne ay next generation ay rakam lay xool yow level boobu ngay waxee wo yow waxoo tey waxoo suba waxoo ginnaaw suba li ma fi wax ni su ma doon xool du ma ci doon xool ay peut être que mën naa delluwaat wala du ma ko ci wax mais damay wax ak sama aqulaay taala ndax dafa jot dafa jot fii gars yi da ngay foo dem ci kër waa Sénégal yéen moom pourquoi nii te wax nañ dëgg ñun ñoo ëpp ci àddina bi ci wàllum basket loolu il faut ñun ñu ñu passer à l'acte quoi il faut dafa jot quoi man na xaw ma ban mooy yoon bi mais il faut ñu xalaat ci jéem a mettre un truc une structure en place te loolu bul wax ak sax basketteurs yi ndax gis na soo nekkee en activité di basket day am yooyu suur mais jëlal ñi nga xamante ni seen wërsëg mu ngi delloo ci leneen lu dul basket wala nekk nañ ay coach wala nekk nañ ñi gars yi teg te ñu teg soxla xaalis ñu ay ñoom rim gars nañ waxante dëgg on a tout ay sii bi coach sii bi xoola ay coach matar développement tu vois am nañ lépp. gars yi ñëpp job bu mu Sénégal job bu muul. mën nga ma ne yow mënoo am sélection bu baax yow soo demee seetaan coach Matar rek xanaa mu war na la mën a defal benn benn benn genre étude profil joueur boo xam ni yow tey jii boo ko yóbbee baal doo ci am gàcce. waaw duwaan kañ la xam ne dafa war a dem baat tey jii su fekkoon waxtaan naag booy biñ fi doon wax sànq euh, comment dirais-je euh, booy kii waaye nu mu booy ailier tam dem ci benn beneen équipe ki ma doon wax fii sànq waaye. waaw tey suñ waxoon nag moom dem ci coachu Matar ne dañoo bëgg nga joobal ko lii lii lañ soxla ci moom bu ñëwee si ñun ci boon liggéey bi day gën a jaar yoon. moom ne chaque deux jours wala dara wala sax muy jouer championnat Sénégal wala sax muy dem di entraîner ak ñoom toute l'année day jàpp loxo. te eh, booy bi dafa mën sànni Matar is a six eleven kid laa ko kenn du répété. mën na sànni mën na déborder mën na jouer te boobu bëri day entraîner mooy li ñu entraîner. entraîner rek lañ xam booy moom entraîner rek lañ xam moom pour so <laughs> pour sonal sa bopp. ah nga may ah, booy booy yoo xam ne ñi ngi ñi ngi Europe ñi ngi Amérique Sénégalais yoo xam ne ils sont ils sont ils sont bien développés. xaalis bi ok xaalis bi nga jëlee like par exemple trois Sénégalais trois trois trois deux camps wala trois camps mu ngi ko mu ngi boo xam ni. Sénégalais yi bu dee jël nga ne ñoom ñëpp nga projet de société laa bëgg a teg projet boo xam ne laay pour yéen la boo xam dañ koy développer Sénégal jéem indi dara. léegi nag c'est Sidi Sidi mi fi dugg sànq Sidi nan la fi mën a nekkee di ligue ñëw na fii Espagne nekk fi en Salamanca di doxal a yëpp yow mën nga ma wax ne ma Sidi amul niveau tu vois genre pour nekk ci quinze quinze douane. Sidi leer na ma ni bu duggoon douane benn rebound du ko romb non moom rebound mooy métier dina rebound dina jouer am na contre-pied yoo xam ne ku ko contre-pied nga toog xam naa Sidi. Sidi is a is a complete player complete player. Hmm. nga bàyyi néeg bu lëndëm bi rek mais jour bi <laughs> néeg bu bi muy ne xam lu mu ciy ah, jot naa jot na ci gars yi jàpp rek dina moom tant ñu ngi toog moom naan non après dina changé lu koy changé c'est toujours les mêmes têtes lan moo koy. changer man action laa gëm ah. action. basket tollatul ñun suñu basketu Sénégal tollatul nit ku xamul basket. di ko yor wala ku mësta basket. yow nag loolu laa la bëggoon sànq bu léegi waxoo parce que gars yi instant yii nag man dama leen blâme seen xam-xam fi mu toll def nañ ko. parce que nit ki li nga xam ak li nga gis moom nga mën def course tamit li nga xam ak niveau bi nga xam ne moom ngay entraîné foofu mais basket bi nekkatul niveau bii basket bi mi ngi te loolu ñi nga xam ne génn nañu peut-être am nañu chance ne dem extérieur fu ne ci àdduna bi ñuy côtoyé coach yu mag a mag yi ñuy gis laa système yu mag a mag yi di entraîné jour yu mag a mag yi ñoo ñoo xam basket boobu fu mu toll. mais ñoom nangu ñoo jox place gaa yooyu noonu. that's the ah, par exemple yéen a naan coach douane bi ak coach parfait ñoom ñaar ñoo bokk niveau ñoom ñaar ñoo yem. bro ñoom ñaar bu ñu yemee même résultat ñuy produire wala ñuy résultat bi ñuy produire du par rapport ak coach pour te dire pour nga xam ne affaire bi niveau la. coach coach pa bi. championnat Sénégal cinq ans ngi xaw ma la dégg naa mu koy tegle waaw te su ñëwee au niveau day des. nañ ko osé wax. su amee joueur bu mag sax day des coach ko sax day des. day day construire un lien complexe bi complexe day daw da gis match bi complexe daw léegi mu génne day booy teg leen ci banc bi dugal ñoom baara booy xeex booy gars yi gis ni mu demee après mu changé la mais booy dafa booy parce que leen neex yow fii États-Unis wala Espagne gars yi nañ jëndee joueur bu ñu dugalee nga sànni bal nga nga taxaw foofu naan da ngay tàcc wala ngay wax ak ay arbitre booy boo ñëwee booy ci maa bi ngay toog nga génn loolu mooy loolu mooy dëgg loolu mooy li nga xam ni mooy mooy li li li doxal basket mooy mooy basket fi mu toll léegi basket you have to keep everyone like accountable ci même niveau bi nga leen nga leen nga di teg wax leen ni lii c'est un projet de société ñoo ko bokk ñoo koy bâtirandoo ensemble donc all you have to do is everybody put his heart inside ah. ñu téye tablette ne ni yëngal ko te bu mu toj loolu la Euh, ba pare xam lan moo ci garaaw mooy affaire yi booy topp commentaire yeeg yooyu gars yi gars yi ñun waxuñu fi ay chinois de gars yi gars yi ñu ngi approuvé ñun li ñu wax de te ñu seetaan oh, ma man dem sama xarit moo ma woo di ma wax ci match bi est man wax dëgg yàlla seetaan na ko mais tu vois genre pour nga xamante nit ñëpp ñu ngi ñu mooy loolu daal il faut daal affaire daal moom xam naa doy na waar moom dañ doy na waar mais il faut gars yi jàpp si quoi mais nag jàpp si mënta weesu les les hommes qu'il faut à la place que les gens qu'il faut à la place que daal mooy ah, en si rek mooy lii nii par exemple ñuy def nii mais dafa bool nga joué nga AS Douanes yaa ngi joué international France si amuy dégg ñoo lii amuñu ko woon cinq ans ci ginnaaw wala deux ans ci ginnaaw wala un an ci ginnaaw amul woon lii joueur yoo xam ne ñooy toog di di waxtaan seen biir seen i raxat ci jëriñoo ak ñeen yoo xam ne ñu ciy jëriñoo ma wax la benn affaire gis nga lii football bi da koo def mu jàll Diao Baldé xaritu Mamadou la ñoom ñaar dañ doon giseen bu yàgg balaa Diao Balde sax di ñëw équipe nationale mais jaaw Balde ba mu commencé xelam di dem ci équipe nationale Sadio Mané da ko woo est que yaa ngi comprendre ne ko ñëwal projet bi nii rek ñi ñu ngi nii gagné nañ Coupe d'Afrique pour te dire que ñun tam dañ ci am solo du waxuma sama jëmm ji de mais yow dañ ci am solo sa plateforme da ci am solo les anciens basketteurs seen plate da ci am solo les les basketteurs en en am solo ñun ñëpp dañ ko soxla parce que en fait benn drapeau la ñuy représenter Sénégal léegi bu njëkk dañ daan topp ci ay joueurs surtout foot bi da daan topp ci joueur boo xam baayam day nekk Sénégal mu lekk ceeb bay bëgg a dee pour mu ñëw mais léegi ñoom ñëpp bëgg a ñëw. ñoom ñëpp ñëpp bëgg a ñëw. sax daal naan day dañuy làkk-làkkul olof parfois nga dégg si kenn koo xam mës a dund Sénégal mais dafa xam ne faaw nga dund Sénégal pour ñu woo la wala dara donc du coup ñun ñëpp lañ soxla mais nag il faut mu kii quoi ay nekk. man moo xam naa peut-être naa wax loo xam ne sax sama sama doyuwaay personnel la mais gis nga ay troisième mandat même ba ci président fédération bi man pour man c'est pas normal saa waaye loo ñu joxul ci deux mandats maayal keneen mu ñëw nañu waxante dëgg te président fédération buñ ko yóbbu ci benn âge bi mënta nekk tey yow mën nga bàyyi yow déwén déwén nga nekk président fédération loolu du dara fii président fédération garba xoosaa yi nii mais duñu ay mag dañuy jour bàyyi seen carrière tey tey suba ñu nekk dem président fédération wala dara te noonu moo gën sax Felipe par exemple joueur bu nekk à lu ne la fa def dafa bàyyi ñu def ko directeur technique. muy voyager équipe beeg yëpp fii nit dafay bàyyi tey tey tey. Espagne gars yi xam nañ ni ma da ngay bàyyi tey tey tey suba ñu def la deuxième coach wala suba ñu def la premier coach. ngay coacher ñi nga bokkaloon Versailles. nañ bàyyi affaire yi di ko yóbbu ci ay ay ay kii gis nga doo fi gis bay euh, basketteur buy dem di bay nit ki pour conflit am faw ngeen bokk centre d'intérêt. nekk na def lim mën rek ku nekk na def lim xam point amul leneen amul leneen na ku nekk def lim xam rek. non Pape wax nga lépp lépp lépp teg ci ci ci ci ci ci bi mu war a tegu mooy li ma expliqué benn instant ma par exemple problème extrait de naissance bépp gaa yi amee ñu ngi juddu bëri problème extrait de naissance par exemple for exemple ma ne de naissance ñi nga xam ni. par exemple bu ñu ko doon bu ñu ko doon tënku nit ki mën na ko koo gérer ci benn benn page web. Uh-huh. boo xam ne nit ki ne France États-Unis ñoom ñëpp seen seen excellence dañuy toog ordre ko online ñu yónnee leen ko yokk ci digitalisation mais paa bi nga xam ne mi ngi toog mairie di ci encaissé deux cent trois ba du ko ba kooku kooku kooku loolu du ko du ko du ko du ko mës nangu ak pas bi nga xam ne mi ngi toog di ci am li wut kooku tamit du ko nangu donc moo tax laay pour nga changer société wala nga changer système dafa jafe. parce que ñi nga xam dañ ciy dund loolu noonu. di duñ ko bàyyi. mooy fédération Sénégal. Uh-huh. dëgg la xam ni ñoo ci ne. di ci di ci dund di ci di ci di ci di ci di ci dimbali seen famille dañ seen baxal lañ ciy teg. dañ naan booy bi France la jóge wala États-Unis la jóge wala Chine la jóge wala Japon jóge dafa ñëw. daanaka lu ci bari. lu ci bari gaay gaay dañoo amul seen jot rek mais lu ci bari sax seen ñàkk xam-xam kese gis nga temps yi amoon na ay temps ñu jëloon fi di jël ay préparateur physique Espagne di jël di indi nii ak léegi découvrir nañ comme quoi que ne am na ay préparateur physique yu qualifié yoo xam ne ay sénégalais lañ di làkk olof comme yow tu vois affaire bi game foofu lañ ko war a yóbbu ñun am nañ lépp mais il faut ñu ñemeentente suñu biir te ku ci def def te yàlla rek tax patriote amul leneen mais am nañ lépp foog ñuy xoosante de. même gis nga bu ñuy def ñun suñ biir sax ñun te kenn raxuñu ñun suñ biir sax te ñuy perte sax baax na parce que dañuy jàng ñu jàngee si au fur et à mesure ñuy dem dinañ am expérience dinañ gën a avancer. c'est ça. Oh, mais bon. yàlla baax na. yàlla Thomas moom kontaan nañ gagné na ba pare def na match. donc <laughs> mais kontaan naa bàyyi ma kii yow jéem a. kontaan naa <laughs> kontaan naa it's been a long ñoo fa ki ñoo ko taxawal parce que kii ci la bokk. xaw ma ay gàncax yu bëri na xamuñu loolu. kii ci la bokk li tax ma dem Espagne tamit moom tamit ci la bokk. big big respect. ñoo fa man yow is blood. jaajëf doxal ci loolu ma la wax nag. doxal ci loolu incha ñoo fa jaajëf ay hi guys man la patak show la woon na gars yi abonné ñi abonné wul ñëpp parce que match yëpp nañ koy couper si di bàyyi roo bi ah tey tey gérer nañu match Monastir bi Thomas Sama moom ñoo support gars yëpp ñëw nañu ah, c'était c'était vraiment vraiment exceptionnel jour bool yoo xam ñëw ñëw ñoom Youssou ñëw gars yu bëri yéeg xam nga ñu waxtaan cadre boo xam c'était vraiment au niveau débat yooyu man moom mooma neex quoi débat yoo xam c'est niveau like vraiment calé sur le sport ñi nga xam ne mi ngi seetaan moom dañ mën a comprendre affaire yooyu noonu c'est des rafet ak show donc gars yi maa leen di ngeen dalu ma tamit ma dalu ndékki ndékki guma xam ah après noonu ñu continuer sama message all love man o love forever rafet ak show jaajëf